ndax Macky Sall ko def ko ministre conseiller waa gëm sa bopp ña mu àndaloon ci jongante ko ko xaan yi nee nañu dalee naa trahir euh, seen mandataire national euh, ñu teew ay kàddoom Kalidou Niass ànd boobu nga xam ne ànd nañ ko moom ñu sanctionné ko positivement moom mooy liste bi jàll waaye bu ñu demee ba diggante bi nga xam ne toogaguñ sax ak moom ñu xëy dégg ne Bamba Fall dem na wuy ji Macky Sall fal na ko dama ne loolu jaaxle la ba pare rus la waxaatul ak ñun toogaatul ak kii parce que am na ay organes yoo xam ne ñu ngi ci biir gëm sa bopp moom toogagoon ak ak kilifa yooyu pour ñu seet saytu euh, donc loolu dama ne ko war lay doon bés bu nekk ñi ñuy teg ay coup loolu day na pour wane ne ñun ñu ngi ci opposition bi ci duñ di coppet ay responsable xëy bambala waaye du tey bugaan moom fa mu nekkoon ci xolu Sénégal lëkkaloo gi dox si diggante Bamba Fall ak président Macky Sall ana kan moo si gagné loolu aw laaj la bu samp beneenub laaj moo di ani lan la Macky Sall di yootu gannaaw ba mu tabee kii di Bamba Fall ministre conseiller ndax dafa bëgg maanaam jël Medina def ko ci xolam ni mouvement boobee Medina ci xol bu Bamba Fall waaye it ndax daf ko bëgg rey ci wàllu politique tontu li yaax Fatou Abdou Ndiaye. Bamba Fall fas yéene liggéey ak président de la république Macky Sall maire bu Médina ñu tabb ko ministre conseiller ci watu njiitu réew mi tabb boo xam ne ay laaj yu bari samp nañu ci lan lay gagné moom Bamba Fall ci li nga xam ne ñenn ñi dañoo jàpp ne transhumance la ndax dafa nekk di waajal lu jëm ci soppi comme ci wàllu politique lu mu ci ti doon socialiste bi jege woon lool xalifa Sall ñu xam ko ci rek euh, mën a wax li mu xalaat ak di ko jëfe firnde gi bokk na ci keroog 2014 ba mu jàkkaarloo ak juróom-benn ministre ñoom ñëpp mu daan leen nu ni mel it la ci élection locale locales yu mujj yi waaye tey dogal bi nga xam ne jël na ko dem fekki mouvance présidentielle mel na na sax vote bi nga xam ne doomu Médina votel nañu ko moom la daal di foqarti jox ko président de la république Macky Sall ci côté nguur gi moom président de la république mën naa retaan ba kekk ndax fekk si bi nga xam ne Bamba Fall fekk si na ko ndax du nuru luy xaajale ak dëddëtle opposition bi bu nu gisee ne Bamba Fall amoon na solo lool ci kujje politique gi ci élection locale yi ci coalition gëm sa bopp ci leeral ndax Macky Sall nekkul rek di nit dëkk boo xam ne dafa nekkoon ci tànkam ngir mën a waajal élection législative ndax Médina solo si nga xam ne am na ko lu mu ci mënti doon stratégie bi nga xamante ne wane na ko ndax dina doon stratégie boo xam ne lam ca yaakaar dana ko am ci législative yi bu ñu gisee ne transhumance am na fi yoo xamante ne la mu indi baaxul bokk na ci Moussa Sy mi perte parcelle Idrissa Seck bi nga xam ne waa Thiès dañu ko gëqi ba élection locale yi wane na ko ca mu ngoog coalition gëm sa bopp ni ma ko waxee est-ce que mën na doxee jógee ci lii nga xam ne moom mooy li ko dal euh, jëm ci gën ci am expérience ak lëkkaloo gi dox si diggante président Macky Sall ak euh, Bamba Fall ëllëg kan moo si mën a gagné. non ñeneen a ngi ñëw. ah am na ñeneen ñi war a Macky Sall Bamba ah. Fall la ñu wax mais euh, dans cette histoire là mooy li ma wax sànq Bougane Gueye ak coalition gëm sa bopp lenn moo leen lenn la ñu mën a def xam mooy lan. Euh, gis na boo demee ci làmb di bëre ñu dóor la ñaari ku nga génn saako yi yenn saa c'est une pour yow nga mm-hmm. defarwaat duggaat ci biir mm-hmm. seet ne neen nooy taxawee il faut nécessairement que moom ak coalition déjà na jàpp ni y aura d'autres départs ci biir coalition mm-hmm. parce que am na ñoo xam ne dañ ko jàppee woon appareil politique boo xam ne daf leen day ànd ak ñoom wala dañuy ànd ak appareil boobu pour am benn gain ci wàllug élection territoriale yi am na ci ñoo xam ne am nañu seen i mairie wala ñu am ay poste conseil mhm. mais am na ñoo xam ne buñ ci noppee c'était juste ponctuel la woon li ñu naan àndu circonstance la woon pour benn objectif boo xam ne dañu ko amoon mais c'est tout à fait normal c'est un parti politique boo xamee ni wala une coalition boo xamee ni début bi ce n'était pas un parti politique mouvement la woon philosophie la woon euh, mu am benn virginité sur le plan politique boo xamee ni day tax ba lépp luy dal dal ko moom mais xam nga lii lan lay gën a prouver également que Yewwi Askan Wi a eu raison mhm. ci lu bari raison bi mooy dañoo ñëw ne ni képp kuy bëgg a ànd ak ñun na signer benn charte boo xamee ni yow doo jéggi charte boobu doo def lu mooy charte boobu loolu pour lan noonu pour sécuriser li nga xam ne moom mooy seen coalition tey ci landerneau politique bi ak li nga xam ne moom mooy ay défection yu am ci biir euh, gëm sa bopp te di am tamit également ci biir euh, euh, beneen coalition bi di wallu muy bu parti démocratique sénégalais nga xamee ni dina am ñoo xam ne tamit ils vont quitter pour dem rejoindre soit yeewi askan wi wala dina dem rejoindre ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall un jeu politique ci seen biir ñoom seen bopp mais li muy gën a prouver nii yeewi askan wi reste benn coalition boo xam ne ni moom moo gën a fort ci wàllu opposition parce que ñoom dañoo seet nu ñuy sécuriser ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci euh, biir yeewi askan wi pour justement éviter euh, mm-hmm. yenn erreur politique yoo xamee ni gëm sa bopp tey def na ko ak coalition wala ñi mu àndal ci wàllu coalition boobu gis ñi ngay dégg ñu ciy wax nii sax ci biir gëm sa bopp wala ci yeneen i coalition euh, may leen tuuti am na ñoo xamee ne amuñu beneen objectif ndax peut-être élection territoriale moo nekkoon seen objectif mm-hmm. jàpp nañu ne législative mënuñu ci am dara donc duñ ci dem mais bu ñu amee fenn fu ñu mën a teg seen bopp ñu mën leen ci am loo xamante ne dañ ci am ci wàllu weccit mhm. ils vont rejoindre et ce sera valable pour d'autres partis donc c'est à gëm sa bopp Bougane Gueye Dany de sécuriser aujourd'hui sa coalition ku mën a indi dina ko indi bu mënee dem pêcher dans parce que y a des frustrés de l'APR maa ngi koy wax am na ñoo xamee ni ñenn ñi yónnee nañ ma sax message naan ma mais Bougane suñuy woowee ñu ànd ak moom mhm. parce que ci biir Médina am na ñu nekk APR ñoo xamee ni ah, doxalinu Euh, seen njiit di pa euh, di euh, président de la république dem jël koo xamee ni dafa mës a nekk opposition sa kanam gañe ñi nga fa tegoon ñëpp ci ay ministre ba pare ñëw yow gënoo dooleel ñi nga xam ne ñoom ñooy ay responsable APR ci biir Médina nga gën leen suufeel ndax jël doole jox ko koo xamee ne seen opposant la woon ñooñu ay frustré lañu mais il faut juste ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci opposition bi surtout gëm sa bopp mais mu seet nu muy def ba capter ñooñu nga xam biir Benno ak ci yeneen li dafay dëggal ne kon li ñuy wax ne politique du diine du euh, ku si nekk sa intérêt ngay xool calcul euh, fu mu la arrangé rek ngay dem euh, gis nga Bamba Fall démb dëggal na si ay kàddoom mu wax ni li ko tax a dem du lenn lu dul xool intérêt Médina ndax suqali Médina développé ko moo ko tax a il faut nga jege état moom noonu la gisee élage maam naan sàngara sax dafa war ànd ak éthique mhm. sàcc sax daa war ànd ak éthique mhm. du diine moom <laughs> man du ma cautionné loolu mhm. war ànd war na fu mu war a nekk ci àdduna war na jéem a incarner benn personnalité boo xam ne dina sàmm deram tey sàmm deram suba. Mhm. lu am solo la. Euh, man dina man damay gisee sax beneen côté boo xam ne xëy na dinaa wuteek ñu bëri ni ñuy xalaati ci ëllëgu. Mhm. Euh, coalition gëm sa bopp. parce que dañu jàpp ni xëy na dañ ko jam paaka xëy na dafa metti ci moom mais xëy na ñu bëri ñi mu àndaloon dem ci élection locale yi. ñu bëri ci ñoom moom moo leen sauvé pour ñu mën a bokk ci élection kon mm-hmm. moom du victime c'est kon moom mënut a nekk victime daf leen dimbali woon jox leen bannière daloo leen xajal leen jàppandale leen appareil la woon c'est ça donc mënut a nekk victime parce que appareil boobu noyau dur mu ngi fi mm. yaxu yamar kii gi nga xam moo ya moo ŋànk yëf yi philosophe bi gëm-gëm bi mu ngi fii kon bu ñu jàpp ni xëy na déception la wala kii daf leen trahir wala kii daf leen non parce que tey ñi dem ñëpp ñu ay militants wu gëm sa bopp. par contre gëm sa bopp dafa leen dimbali woon pour ñu dem ci ay élections. Euh, choix wu politique ku nekk sañ na ko parce que gisoon nañu fi ay choix dem manqué wax ay jamono yu Abdoulaye Wade bi ñuy nekk ci ay nguur. Mhm. mais man ma ci choix wu Bamba Fall. Mhm. li tax ànduma ci mooy démb ci suba mën naa ko questionner ak démb ci ngoon mais bi ma gisee Seydou Gueye Seydou Gueye ci wetam. man bu ma laajoon conseil. ni naa ko mën nga def sa conférence de presse joxe explication te doo nekk ci wetu Seydi Gueye xam nga la moo tax daaw ak daaw jéeg dafa yàggul bi say Gueye taxawee ci buntu mairie Médina saaga ndey waa Médina ak mairie ba ni faaw mu dugg ci biir mairie bi loolu dafa yàggul mhm. tiraillement bi mujjee am ci bi ñuy tànn candidat ci élection locale yi diggante Seydou Gueye ak Cheikh Ba donc mënoon na mën nga jàppale nit te doo simmi sa veste ci wàllu politique Euh, tey Khalifa Sall dafa am partem Ousmane Sonko dafa am partem Déthié Fall dafa am partem Babacar mhm. Diop dafa am partem Moustapha Guirassy dafa am ay Aïda Mbodj dafa am partem dañu taxaw sos benn coalition amul kenn ku simmi sa mbubbi sa mbubbu parti ba ma faal egg na ci pointure boobu tey waroon na moom am lu mu créer biir Médina lu mën a tas bas ba nekk national ëllëg mu seet ku muy àndal ci wàllu coalition mais gisuma woon ci déclaration moom Seydou Gueye nekk ci wetam xam nga euh, Moussa Sy bi ko bi ko bi ko Macky Sall jëlee daf ni dafa dem seey mhm. Idrissa Seck dafa seey mais boo amee xalaat ci wàllu pour nga xam ni seey gi maintenant du njig laay ci Sénégal mm. est-ce que kon damay dem seey wala damay taxaw lu dëgër loo xam ne bu fekkee Samuel Sarr amul parti politique mhm. kan lay jàppale Macky Sall mais seeyalul partem buy def conférence de presse am waa APR duñ fa dem Oumar Sarr amul parti politique am mhm. fu mu nekkoon du PDS est-ce que buy def ay yëngatoom waa waa APR dañu fay ñëw non non dafay incarner Ablaye Balde la même chose Ablaye Balde bi mu demee ba xaw a layam layamal ci parti